allahuma callimna maa yanfacunaa wanfacnaa bimaa callamtanaa wa zidnaa cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillahi alladi axyaana bacda maa amaatanaa wa ilayhi nushur Rewmi FM 97.5 delsiwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar wi ci waxtu wi ngeen di ci ànd ak seen mbokk Ibrahima Dramé ki nekk ci wàllum xarala gi muy suñu doomu ndey di jaawo jallo gannaaw buñ sante buur yàlla subhaanahu wa taala julli sinent bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa yéen a ngi fàttaliku woon keroog bi ñu doon taxaw ak yéen ci waxtaanu fajar ba fii jaar ñu di ko wittalanteeg mbokk auditeurs yi ñu ngi yemoon ci suratu saafaat ci xew-xew su mag wi nga xamante ne ñoo ko digmal mu nekk suñu kanam di ñëw di xew-xew tabaski ñu ngi ñaan buur yàlla subhaanahu wa taala xew-xew su mag jooju buy ñëw yal nañu fi fekk buy dem yal nañu fi bàyyi te lépp lañ fa jaamu yàlla yal ko buur yàlla nangu amin ya rabbal alamin mbokk xam ngeen ne suñu buntu bu weesu woon ñoo ngi doon géema andi waxtaan xew-xew su mag ba nekk suñu kanam di ñëw di tabaski te yàlla defal ko feet xeetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa waaye ana lu waral feet bi woowu ana waral xew-xew woowu buur bi subhaanahu wa taala mu ngi nii di ko yenkeewal suñu yonent bi ci suñu alquraanul bu mag bi di alquraanul karim boo demee ubbi suratu saafaat li ko tàmbalee aaya 99 ba aaya 102 di nga fa fekk waxtaan su mag ba jaar diggante jëmm ju sell di suñu maam yonent yàlla Ibrahim xew-xew boobu jaar digganteem ak xeetam ngir xeetu yonent yàlla ibrahim dañoo nekkoon xeet woo xamante ne yàlla dafa àtt ñoom seytaane mëne leen ba ñuy jaamu xërëm jaamu xërëm boobu waxtaanoon nañu ak yen naka lañ ko daan defee baleen leen yonent yàlla ibrahim waaja fexel ngir ñu bañ a jaamu xërëm yooyu waxtaan nañu ne ak yéen na yonent yàlla ibrahim defoon ba gor seen yàlla yooyu mu doon seen xërëm ya ñuy jaam waaye ba léegi waxtaanoon nañ ak yéen ba keroog ñu fexeel yonent yàlla ibrahim ngir ñu mbugal ko mbugal joo xamante ne dañuy taal safara ne jëppéet ngir ñu tàbbil ko ci biir safara suusu dawul jaaxlewut nëbbatuwul raful xefut waaye mu ànd ak ngëm yàlla bu toll nii pas-pas bi nga bi toll nii yàlla rekk lay jaamu te yàlla rekk moo may génne ci nattu bi ma teg nii moo ne gasal nañ ko kàmb lalal nañ ko ay ndëgg yàlla daal naax saayloo seen pexe woowu ñu pexeel yonent yàlla Ibrahim ba léegi keroog ina ngi ko suñu bunt bu mujj waxtaanoo nañ ak yéen ne yéen ci Ibrahim daa mujjee gedd xeetam daa mujjee gedd gaayami mu daldi wacc xeetam génn seen moo tax nga dégg aaya bi ci aaya quatre-vingt-dix-neuf ba bëgg tàmbale min alsheytaani arrajim yonent ci yàlla ibrahim gannaaw bu mu waxee xeetam ne leen in rabbi habli mina saalihin mu sama borom mang lay ñaan yow mi ma moom gis nga fii yonent ci yàlla ibrahim mbokk yi ñaanul allahumma ñaanut yaa allah fii ismullahi l rububiya la yonent yàlla ibrahim jëfandikoo fii mu ne rabbi sama borom yow mi ma moom yow mi bàyyi sama gaay def ma lañ ma def waaye yow mi att ci samay xeet ñu nekk nekkin ba ñu nekke rabbi yow borom boobu ma lay ñaan rabbi yow mi ma bind yëguma ci dara nga andi ma ci àddina si yëguma ci dara kon yow mi am kattan ak sañ-sañ ci sama jëmm ji rabbi sama borom yow mi nga xamante ne la ma lay waaj a ñaan si nii yow dong yaa ma ko mën a defal rabbi yow mi moom samay mbir yépp yoncele Ibrahim ne rabbi yow sama borom bi nga xamante ne la bëgg ñaan nii ci yow dong la nekk nekkul ci jinne nekkul ci buxaaba nekkul ci jaamukatu xërëm nekkul ci gisaanekat rabbi yow mi ma moom méngoo samay mbir méngoo la ma feeñal ak li ma nëbb rabbi yow sama borom kon ibrahim alayhi salaam ñu gis ne jeex na takk fa yàlla suñu borom tabaraka wa moo tax mu woowee ko mu ñaanee ko ci tur wi nga xamante ne yàlla day fisal moomelam ci lépp rabbi ba ibrahim utilise fii pour ñaan boromam lam ko bugg a ñaan moom la suñu borom dëxiñ ci alquran ba mu jox suñu yonent bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wasallam mu nekk njëlbeenu aaya boo ne alhamdulillahi loo ciy teg rabbil alamin rabbil alamin cant xeetu cant yu kawe xeetu cant yu mataley lépp yàlla dong ko yeeyoo ndax lu tax mooy rabbil alamin mooy borom bi ndaafoo ni kon rabbi ba yàlla dëxiñal suñu yonentu bi ci téere bu mu ko jox turu rabbi boobu la yonentu yàlla ibrahim utilisé fi mu ne rabbi sama borom habli maa ñaan may ma la Ibrahima ñaan du urus du jamaa du lenn ci matérielu àdduna la ko Ibrahima ñaan mooy rabbi sama borom habli maa lay ñaan may ma min as takk nder ju baax ku may donn ndono bu baax rabbi ma ngi lay ñaan nga may ma ku baax màggat naa awma doom soxna si tamit kazalik amuñu njaboot kon ma lay ñaan ma lay ñaan nga may ma ki may doon mu doon ku baax waaw yoon ci la Ibrahim ku baax la ñaan nañ leen xool la ko yàlla jox waaw yàlla boo ko bàyyee sa mbir rek mu tette la teg la ci yoon yàlla ñu aaya mbokk yi yonent yàlla ibrahim daal ñaan yàlla ne ko yow mi ma moom mingoo samay mbir rabbi ma lay ñaan may ma ku baax waaw yàlla suñu borom tabaraka wa ne ci téere bi ne fa basharnaahu ñu daal di ko bégal bi gulaamin tu tànk gone goo xamante ne xaliimin ku neex a la ku neex jëflante la gune gu baax ku yiw ku tabe ku neex a di doomu ibrahim alayhi salaam te mooy yonentu yàlla nabiyullah ismail alayhim assalaam yàlla ne ñu bégal ko gis nga fii mbégte la ko yàlla wax parce que kim ko may ibrahim dakaa bégee ki ko yàlla may ibrahim daka bëgg moo tax yàlla may ko ku muy bëggee waaw ah. xam nga am na yeneen aaya ya nekk ci alquran fa borom bi ne wa wahabna lahu ñu may ko wa wahabna lahu suleymaan nee na dañoo may daawuda suleymaan waaye fii borom bi daf ne fa basharnaahu ñu bigal ko daawuda yàlla neena daka dakaa may suleymaan fii yàlla nee na dama bégal yonent yàlla ibrahim doom ju neex a jur doom ju neex a waxal doom ju neex xool doom ju neex a jëfal doom ju neex a jëflante waaw kañ waaw fa basharnaahu ñu bégal ko bi gulaamin xale woo xamante ne xaliim ku nooy la xale goo xamante ne bu lay xool dangay gis si bëtam yërmande ba mu lay xool danga koy gën a bëgg boo jëflanteeg moom kazalik boo ko liggéeyaloo noonu ngay gis ci moom xale goo xamante ne daal moom dafa neex a jëflanteel ci côté yépp waaw yàlla nag dakaa bégal Ibrahim waaw yàlla daa bëggal ibrahim doom ju ñu naan ismail mu nekk gulaamin xalim xale bu neex jëflanteel xale bu nooy xol waaw lépp ma disponible daray ismail difficile lépp ma disponible waaye la ko yàlla bégal xale boobu ànd ak loolu yëpp ndekkete nattu bu mag a nekk ci kanamu mbégte bi borom bi ne fa lamma balaga maahu sha'ya qaal yaa bunayya inni ara manaami anni asbahuka fanzur maaza tara bur yàlla ne keroog doom ju neex a boobu doom bu disponibul boobu doom boobu nga xamante ne daraam difficile lépp ma disponible lépp ma jekk lépp ma noy fa lamma balaga maahu keroog ba doom bi demee ba taxaw doon waxambaane ju mat waxambaane nekk jeune bu dëgër waaw yax yi dëgër melokaan bi doon melokaanu góor gu dëgër muy doxal pàppam soxlaam mu di ko wuutu ci ay liggéey yu difficile ah xaal baay bi ne ko nag jamono ji ñu toll nii dafa am li may feeñu ci gént waaw mu ne ko yaa bu neyya ey yow sama doom yaa bu neyya boo ko déggee ci làkku arab baay di ko woowee doomam ngir dafa am ci moom ñewent da kaa bëgg sopp ko mu am ci moom ñewent moo tax baay di wooye doomam ci lugal arabiya yaa bu nayya mu ne ko ey yow sama doom mu ne ko inni naka man sapap pap ibrahim ara dama gis won nañ ma fi manaami ci nelaw maanaa gént naa ci nelaw ñu won ma anni naka man de asbahuka tëral naa la ma di la lii nag jaxle ma lool ma am ci tiis am ci xol bu xaw a guus waaye nag dëgg la maa am ci yow sañ-sañ waaye laata may def la ma gënt nii dama la bëgg a laaj sa xelaat yow lan nga ci xalaat gënt bi de dikkal na ma plusieurs fois daana ma dikkal mu di ma dikkal léegi nag man dama xamul la ma gént nii dama ko war a jëf walla dama war a waxtaan ak yow mi ma gént ma di la reyndi mbokk yi yenn jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot bu dee ñetti njaboot ñoo jëf-jëf bu neex yàlla be borom bi tabaraka wa ta'ala defal ko suñu yonent bi mu nekk feet woo xamante ne moom lañu jublu ci nii nañ leen jël aaya bi ak xissa bi ñu natt ko suñu jëm waaye nañu jël Ismaayil natt ko suñuy doom ñu jël soxna si Ibrahim natt ko ci suñu soxna yi xale bi lu mu tontu baayam est-ce ñun bu ñu amul xaru tabaski noonu la suñu doom yi di tonto tontu bi libre na kenn ku nekk noo ko mën a tontoo des na ci yow waaye nag beneen question encore soxna si ki jur Ismaïl te mu nekk soxnay ibrahim alayhi salaam nañ leen xool ba xam moom it nu mu tontu boroom këram est noonu la suñu soxna yi di tontoo bu ñu àndiwul xar ci kër gi loolu tamit tontu bi ba léegi question libre la kenn ku nekk war naa mën a tontu lan ko sentire ak noo ko mën a tontoo kon ñu wéy si aaya bi bi léegi mbokk yi yonent yàlla ibrahim gannaaw bu mu waxtaaneek doomam ne ko man de dañ ma won ci biir gént gi ma di la reynde waaw fandur maasa tara li ma la wax nii loo si gis mbokk yi ku bëgg a xam li doom bi tontu baayam gannaaw bu mu ko posé question bi nang ñu jàpp ci réew mi fm 97.5 tontu ismaila ci baayam du dara lu dut mu ne ko xaala ismail mooy doom bi mu ne ko yaa abati yow sama baay ju baax ji yaa abati yow sama baay bu baax ji yaa abati yow sama baay bu jub bi yaa abati yow sama baay bu topp yàlla yaa abati yow sama baay bu excellent bi if al defal maatu umar lañ la diggal sa tajidu nii lang ma bëgg a def te ñu diggal la ko ding ma fekk ci loolu mina incha allah ndem soob na yàlla mina saabiriin ma doon ci woy muñ kaj ñi ismail daf ne pappam yaa abati yow sama baay if al ma tu'mar defal lañ la digal waxu ko ne defal li la neex sa doom ndekra déedéet waxu ko defal li la saf wala li nga bëgg mag ci sa disposition déedéet daf ko ne ifal defal maa tu umar lañ la digal lañ sant waaw fii nañ leen taxaw seet xool na yonent yàlla ismail doom bi doomu ibrahim di ismail na ismail a xamee ne dañoo digal papam pour mu rey ko baay bi jëf bum ko wax noonu naka Ismaayila xamee ni lii ndigle la ba ñu digal sama baay nu mu ko xamee kon doom bi dafa gis ne baay ji baay ju baax la baay ji baay bu noble la baay ji gis na ne du jëmale lu ñaaw ci yaayam Ismaayil gis na ne sama baay du jëmale lu ñaaw ci sama yaay sama baay du jëmale lu ñaaw ci dëkkandooraami sama baay du jëmale lu ñaaw ci man walla samay xarit sama baay baay bu noble la baay bu excellent kon lépp lim ma wax nu mu métti métti métti dinaa ko accepter dina ko nangu xam naa ne lim ma wax ni metti na lool tiis na lool waaye ndigle la de waaw ndigle la dañ ko ko digal xawma ku ko diggal géemu xam sa ku ko digal waaye ndegam dakaa feeñu ci nelaw ci gënt kon du lu mu créer boppam kon lu du lu mu buggal boppam musuma koo yàqal dara li tax mu di ma rey musuma koo tuumal musuma koo yàqal lenn musuma koo defal dara lu koy metti lu tax mu jéppi ma beddi ba mu bugg a ma rey mais non kon kii la ne dafa am la ko feeñu ci nelaw loolooy dégg te ngaa def li la neex papa papa defal li la neex waaw defal li la neex defal liñ la digal ndem soob na suñu boroom digg ma fekk ci woy muñkat ñi lii la doom ju baax war a wax ak papam lii la doom ju baax wax ak papam keroog waaye lii la doom ju baax ku ne wara a wax ak wuy juram su ko defee jàmm ne ñooy penc bi jekk nekkin bi rafet su ko defee borom bi subhaanahu wa taala luy defar néegu yonentu yàlla ibrahim gannaaw bu ko doom bi tontoo lii mu ne ko yaa abati yow sama baay ifal ma tu'mar defal lañ la sant kom sa boroom moo ko sant defal sa tajiduni inchaa allahu min assaabiriin ding ma fekk ndem soob na suñu boroom ci way muñkat ñi la nga bugg a def na mu mitti mitti mitti mu mun a mel dinaa muñ ding ma fekk ci way muñkat ñi kon fii nga déggee ci ne képp ku muñ njëgu xar bi nga xamante ne moom lañu jotee bakkanu doomu aadama yàlla bu la ko fay rekk nga xeeb sa jëf waaye képp ku muñ njëgu benn xar bi nga xamante ne war naa mën a wuutu fukki xar ak juróom nga jël ci benn wesaare fukki xarek ñeenti ci miskiinu yàlla yi bi léegi peyoor bi tamit gën naa duun waaye bépp soxna ba muñal sa jëkkër bépp façon xar ba islaam reconnaître ne xar woowu mu man tëbaski bu la ko andilee boo xelaatee la soxna yonenti yàlla ibrahim nangul borom këram yow it di nangul sa borom kër xar qualité bi la andil ndax kii di soxna yonent yàlla ibrahim alayhi salaam waxu ko ne suñu doom bi nga bëgg sacrifier waxu ko ne suñu doom bi lu tax nga nar koo def lii waxu ko ci dara lu dut da ko ne rek lii nga bugg a def nii ndegem dañ la ko digal nang ci wéy kon yow boroom kër gi xamal ne yonent yàlla ibrahim alayhi salaam ndegem sunnaam bi la roy moom nekku fi di xalaat wala di jëflante xale bi giiti ngaasa xuluwuñu xeexuwuñu xale bi dawul kon yow xale bu góor bi tamit bul gis ne góor gi lu mu andi gisuma ci lu rëy gisuma ci dara la fees sama bot affaire bi du fuufu affaire bi fenn la na ko ragal yàlla lal borom bi subhaanahu wa taala daal la nga xamante ne moo tax yëkkati mbir boobu kon ñu gis ne fii bépp parent dafa war a jël melokaanu yonent yàlla Ibrahim mu daldi ko comporté wo bu fekkente ne woon dañ ne suñu njaboot yi la ñuy jotee tabaski kon mbir bi du sotti waaw du sotti bu fekkente ne tamit suñu njaboot yi la jotee tabaski kon àddina si meññante bi daanoon na dagg dippi jamono yoon ci la Ibrahim waaye nag bu ñu demee xool ci biir saar bi ba léegi dinañu gis borom bi ne gannaaw doom beeg baay bi dañoo d'accord la baay bi doon gis gént bi mooy mu reyndi doomam gannaaw bu ñu tënkee kàddu gi tënk baat bi d'accord ne léegi dañu war a dem exécuter la leen yàlla digal walla la góor gi di gis si nelaw te mu doon gént ba mu doon gént muy rey doomam moo tax aaya bi ne fa lamma aslama ñoom ñaar keroog bu ñu jébbaloo seen bopp ca la leen yàlla digal buñ ko accepté ñu nangu ko ñu xam ne ndigal bi de yàlla moo ñu ko digal doom bi xam ne yàlla moo digal sama baay ngir mu reyendi ma waaye baay bi tamit xam ne a ah, gént bi may gént nii de nisér ba ma jëloon na yàlla daal ma ko fàttali kon sañu maa dellu ginaaw ñoom ñaar ñu daal nangu pour jëf la yàlla woon guur gi ci nelaw ngir ñu exécuté ko moo tax yàlla ne falama aslama ñoom ñaar bu ñu d'accoore ñu accepté ndigal ba ordre ba jóge ko fa yàlla wa tallahu lil jabin ibrahim daldi jaaxaanloo doom bi action bi yëpp yàlla toog di seetaan ba xam ibrahim dafa am leneen lum si laxas walla day dem ci ndigle bi direct mu daldi takk kom na ko ñeneen ñi di taawile ñene takk loxo beeg takk tànk beeg takk but bi ba nga dégg ci sax am ñu naan da ko naan takkaaleel sama bët ngir nga bañ a am yërmande jamono bi ngay jëf li ñu yàlla digal su ko defee nga am xolu yërmande narkaa fomm góor gi daldi takk bëtu doomam mu daldi xool ci kaw jàkkaarloog jaww ji xool asamaan yàlla ling ma sant de ah mu ngi nii maa ngi ciy dem waaye bu Ibrahima ñàddee dara du sotti mu góorgóorlu ci dara du sotti a ah, moo tax aaya bi ne falamma aslama watallahu lil jaabin ñu daldi di tiral yonent yàlla Ismaïl góor gi daldi ko tiral ci doqali defar waajtaay bi nga xamante ne moom la war a jëfandikoo ngir sàmm wante la ko yella digal def na kémtalaay kattanam ngir mu def ndigle ba tukkee ko fasax borom waaye jëfandikukaay boobu amul ordre ngir mu dagg géem naa daas paaka bi géem na góorgóorlu waaye dara sotti wul ci kattanu borom waaye bu bu borom bi gisee ne yonent Yàlla Ibrahim mu ngi góorgóorlu ngir respecter ordre ba ko yàlla géntalu buur bi subhaanahu wa taala ko woo ci yërmandeem moo tax aaya bi ne wanaadeynaahu ñu daldi woo Ibrahim wanaadeynaahu ñu woo Ibrahim ñu ne ko an yaa Ibrahim an yaa Ibrahim ñu woo Ibrahim ñu ne ko matu ko jaru ko xat saddaqta ru'ya ca dëgg dëgg dëgg dëgg dëggal nga gént bañ la géntaloo da aspaaka bi jaruko ko góorgóorlu bi ngay def pour ñàdd sa doom jaru ko tegal lépp ci suuf wa naadaynaahu ñu woo ibrahim wa naadaynaahu ñu woo an yaa ibrahim ay ibrahim xat ca dégg dégg dégg saddaqta ruya déggal nga gént bi waaw ci ñun yàlla de nii lañuy ñuy najizil muhsinin lañuy faye fayee way rafetal ni kon yow borom kër gi gémar góor góorgóorlu rafetal aminu gàtt gi yow soxna si góor na nanga géem a bàyyi borom kër gi mu andi fa doolem toll waaye yow doom bi tamit nanga mel noonu mbokk yi waxtaan wi jeexut ñu ngi ñuy won waxtu bu tuuti bu ñu am ci waxtu wi jeex na takk ñu ngi war a jébbal béréb bi ñu war a joxe xibaar ci nasaraan lu jub si kàddu ñu sante ko borom bi tabaaraka wa taala lu si dëng ñu ngi koy jéggalu ki ñu àndaloon ci waxtaan bi mooy seen mbokk Ibrahima Dramé ànd ak suñu technicien bi Jaawo Jallo barakallahu li wa lakum fi alqur'ani alazim wa nafa'ani llahu wa iyyakum bima fihi min alayati wa dhikri alhakim